ñi ci yàgg ñi ngi ci xëy na nan lañ koy négocier. ñeneen ci dugguñu xamaguñu kañ la ñuy dugg. maanaam li ma bëgg a wax mooy boo amee xarit sax ba déggoon ne maye nañ ko heure boo déggatee turam da nga ko baa mën ca sëy ba nga ne waaw nga ne ouf c'est grave ci contexte boobu lañu ñu nekk. <laughs> yaa dégg donc ça n'a rien à parce que yow li ngay wax mooy reewantu bokkul ak réew réew moom benn rek la. amul ñaar amul ñaari réew leneen loo ci toftal rek tuddutul réew réewantu xëy na réewantu comme ni nga ko waxee sànq bajjantu yaa ngi dégg bari bari euh, nu ñu koy wooyee sax euh, nu mu tuddati bari ay euh, ay ay ay ay yooyu def yoo xam ne saar rien de méchant hmm. ça n'a mais réew moom dañu bañ ba ne nit ku réew la nga yor moomuloo ko. Mm-hmm. bu yor li nga yor bu waddee ku mm-hmm. yaru mooy for jariño mm-hmm, loolu la ñu wax. ñëpp nangu ci loolu. donc ça n'a rien ak loolu. mais xam nga li tax waxtaane ko euh, ma jàpp ne am na solo d'abord il y a le contexte euh, social dans la dans lequel nous sommes ñaareel bi mooy man dafa am lu ma remarqué parce que xam nga soo nekkee ci dëkk nit ñi jàpp ne sa àlluwa. yegg na ci foo war a waxee ñu déglu la. Hmm. da ngay sóoraale ni ñi ngay waxal aussi ay boromi xel lañu lu ñu ay dof. bari na si nag ñu am opportunité ñu jàpp ne seen àlluwa dafa kawe te bu ñu toogee ñoom si expert waxtaanee wu ci li ñu lay waxal noonu lu ci charia lu ci dara c'est-à-dire lay wax ñoom selon seen expérience wala selon seen jikko ñoom. Hmm. da ngay poser nit sax question ci charia mu tontu la moom ci jikkoom. mës na ma dal ci benn télévision ma toog di seetaan am waaju dugg laaj ne ko euh, oustaz dama leen laaj ndax sous-vêtement julli na parce que man lu ma wax rek dama bëgg mu am firnde ne ko ndax sous-vêtement julli na ci charia ndax souleyment julli na waaye yow boo koy tontu tontu ko ci tontu ko ci charia ma xam ndax julli naa am déet parce que man il peut m'arriver ma dawal sama oto voyager heure julli jot ma droité par exemple fenn tuur ndox defar effectivement diggante may def loolu yëre bi nekk ci kaw takk sobe ma summi ko teg ne mu laaj ndax moom maa bi mu desee julli na waa wala déet boo ko bëggee dimbale da koy wax ci charia ndax julli na waa wala déet mais xam nga lu ko tontu daf ne ko est-ce que bu la Macky Sall woowoon maa nga fay demee wallahi azim est-ce que bu la Macky Sall woowoon sewetment nga fay demee c'est ça la réponse moom mu posé la question ci charia yow koy tontu ci Macky Sall alors qu'il a besoin de moom donc il faut ñu bàyyi waaraate jikko n'est-ce am jabar aussi mu xamadi xamadi réew a réew a réew a réew yàlla na la ko te mënoo koo bàyyi hmm. nga bëgg koo daganal hmm. daal di lim sa benn aaya boo xam ne waxoo ndax aaya muñ la wala aaya ku réew parce que ñu dañoo yor xel di xalaat xaw ma ko yow sànq père daf la ko jam daf mais nanguwul déglu rek ma ñëw daf na da ne ko ndax dégg nga aaya bi mun la waaw tekkil ma ko nga daal daw deuxième. daw daw dama ne yéen ñii ne waa ji li mu wax. réew boobu ba teg aayaam ñenn jël sa aaya bopp. wax leen aaya bi mu wax. dé dé non non déggoo déggoo ma xanaa déggoo ma. man waxuma waa mu wax moom. Hmm. aaya ku réew la. waa réew wala aaya ayi muñ. waaw ñun ñu siy waxtaan nag war nañ xam aaya bi la. exactement hmm. très bien xëy na bu amee ku ñuy raw àll wa parce que man du ma wax lu ma xamul. waaw waaw mais ça m'étonnerait hmm. que mu nekk aaya bu spécifiquement pour que jigéen ju réew. waaw ça m'étonnerait. waaw muñ de la yaakaar loolu moo tax man la c'est des caprices. loolu lay wax ay caprices xam na lay wax man ah, waxuma yow caprice. yow yaa ah, caprice nga wax. ci caprice nga wax yow. Mhm. man réew laa dégg ci réew laay wax. bàyyi ma wax ci réew. la wax parce que man réew xaw ci ñaar. Mhm. te réew nag amul àpp. nit ku réew mhm. capable la lu ne. loolu tax terme mot bi dangereux. à mon avis. dama ne aaye bi. aaye ku réew la jigéen ju réew wala aayu ayi muñ mm-hmm. xëy na bu amee ku ñu ëpp xam-xam dinañu ko leeralal mm-hmm. parce que bu dee aji aji muñ lu ma d'accord la loolu yàlla moo ne maa ngi farak aji wu aji aji muñ yi loolu moom su su boobaa su fekkee ne aji muñ la su boobaa dootoo ko spécifié ci jigéen góor rek jigéen ñëpp ku muñ rek yàlla farak yow muñ rek muñ kay parce que su fekkee ne pour muñkat bi la aji muñkat la su boobaa dootu dootoo ko spécifier yow ci jigéen mhm. day valable pour jigéen valable pour góor mhm. mais ça m'étonnerait que aaya boobu je défie nag jusqu'à la preuve du contraire bu nekk aaya boo xam ne da koy méngaleeg jigéen ju réew nga war ko takk yow parce que moo lay texe parce que bokk na ci la mën a texeloo ëllëg je ne crois pas très sincèrement donc ma wax ne gis nga euh, comme ni nga wax euh, m Euh, euh, reewantu mhm. mooy caprice parce que moom ci biir discours am sax wax na takkal ku reew takkal ku xamadi waaw jaawale na sax yooyu parce que bokkuñu ñaar yooyu reewande xamadi bokkul mhm. mën ngaa takk ku xamul ku xamul dara wax kay ku xamul sax en général ngeen fexe nga fexe xamal ko yow mhm. ku xamul xamul parce que ki xamul la différence entre ki réew ak ki xamul mooy euh, mata suñ ki xamul Mhm. soo ko jubbantee mu ne ah. waaw man de loolu xaw ma ko woon. dëgg la wax kay ki réew na danaan maa tey. Mhm. maa ko gën a xamaatoo maa ko defee nii. waaw fa c'est la différence. Mhm. te moom ci waaraateem dama dégg mu ne takkal ko réew takkal ko xamadi. waaw xamadi ak réewande du benn. ki xamul soo ko xamalee mu xam il faut qu'on soit sérieux dans ce pays là. encore une fois war nga wax. li waykat boo xoon bu mu la tax wax laa xamul yaa ngi dégg parce que ki xamul moom. nit mën naa takk ku xamul. Mhm. man mii xamuma xëy na keneen xamul. Mhm. waaye ki xamul day nangu ñu xamal ko. Mhm. te bu ñu xamalee effectivement ñaaree danaan ah ah loolu de xaw ma ko woon au fil du temps même da ngay xam ni kii nekk moom xamul dara mais ki réew day xam moom li muy def lu mu doon. mooy li li li li père introduire sànq c'est très important. dugg ci boutique gis lu rafet ne lii kat baax na pour soxna si nga ñëw mën la yow maa la ko sant maa la sant lii. loolu loolu xeetu réewande la. am na de. réew désagréable. tabaski jot. Hmm. nga dang dang dang dang xamul loo jot avance tabaski xamoo loo kii yàlla bu mu coïncider nag ak euh, location euh, période fin du mois borom ki moom appartement bi xamul ne tabaski lañ jubu euh, école jublu ainsi suite nga lijjanti sam xar ba dugal ko moom amul lu mu tabaskee yow nga di ko yóbbaaleel mooy la xar mi bu mu fi dugg réewande la bokkul ak caprice. bokkul ak ku xamul. toj cappaara prise oto. yaa ngi may dégg sama jëkkër kat def na ma nangam nangam bi kat neexuma ma bàyyi mu liggéeyi. ma bàyyi mu liggéeyi ma yebbi armoire am jël di si ay yéreem di siso di di siso di siso ba mu jeex loolu xeetu reewande la loolu yëpp nag la ñuy wax nee na na jëndiwaat beneen pare-brise nga toj sama pare oto nga nañ jëndiwaat beneen pare-brise. loolu. loolu bokkul ak caprice. Hmm. bokkul ak xamadi. Hmm. encore une fois. Euh, comme ni ko euh, sànq per waxee. waxanteeg sa jëkkër. Hmm. waxante bu ndaw. guddee ngaa ñëw ak woowoo maag lu tax dégguma laag lu tax nangam nga jël nga jël cours dóor sa télévision ba. loolu ay du ke loolu caprice. caprice. mooy reewantu. am na ni ma ko mën a tekkee man. waaw bajantu reewantu. mooy caprice. loolu du dara loolu day day nduroog réew te du réew. waaw déedéet. mais réew moom. Hmm. la preuve. olof Njaay sax dañuy wax ne la nit bu réewee ba muy dëgg ci moom. Hmm. da koy jaawaleeg dof. Hmm. bu réewee dëgg ba nga ba dëgg gi dëgg dëgg ci moom da nga koy jaawaleeg dof. ndax moom ak entre moom ak dof. Euh, sagar yi sol rek di dox rek moo leen di wutale. moo leen di wutale donc man ma jàpp ne encore une fois parce que effectivement. pour man dafa am yoo xam ne bu ñu koy waxtaanee euh, comme ni ko contrairement ak ni ko mayaa gisee ah gis-gisam la nangul naa ko ko c'est des c'est des choses auxquelles pour man waruñu ci euh, waruñu ci doit mettre beaucoup de sérieux par parce que mariage encore une fois du du dama gëm ne du caaxaan. Mm-hmm. dëgg la. donc ku ci nekk ku ne. Mm. parce que li nga wax noonu xanaa xamoo ne euh, comme li nga wax sànq maya mu respecté la nga respecté ko. Mm. mais boo waxee nit ku réew kay respect amatu fa. ba joxe ba loolu ngay wax sax tu n'as aucun respect pour moi da nga réew. quand de réew au sens vrai du terme mënatoo indi respect teg fa amatu fa. bu dee caprice nag ay affaire ndaw la yoo xam ne jëkkër da koy jabar da koy bajjantoo ci jëkkër. mu nekk cap effectivement yooyu. moi je te sama début mais yow tu me parles de réew moi je parle de la vidéo bi employé le terme réew. il n'a pas employé le terme caprice. il a bien dit réew. waaw Maya dinaa ñëwaat ci yow. il a très bien ri réew. c'est que sama wax ne c'est-à-dire ñu dégg réew. ñu koy ñu koy ñu koy ñun dina ko def dañu ko defal caprice. Ah, non. on parle réew lax daf ne takkal jigéen bu reew parce que bokk na ci li nga xam ne ni daf lay daf lay taxeloo ëllëg. c'est elle qui va la déformer. d'accord ah, ma ne man d'accorduma mm-hmm. encore fois. Mm-hmm. pour la bonne et simple raison xale bu réew la xale sax li ñuy wax mais nit ku réew en général parce que mag sax dina yor dara di réewantu ba buy ñàkk sax du ko yëg. ñàkk ko nit ku réew moom la nga yor moomoo ko. déedéet boo boo bajee bàyyee mu wadd ku yaru mooy for jër jariñoo hmm. loolu laa gëm man encore une fois nañu bàyyi di waaraate jikko wala am jabar mu nattu la yàlla nattu la jabar ju tàng jabar ju xamadi jabar ju réew loo def mu këpp ci kaane nga bëgg a taxaw yow di ko valider dagg aaya teg d'accord uma encore une fois. matin je suis pas d' accord. téléphone yi ah. après bu ñu ñëwee ci matin dem ci Benoît ñu commencé leen jël. Aïcha Matam. alors bonsoir tout le monde. bonsoir à toi. namoon naa leen trop. ñoo la raw ba tardé bi. Euh, waaw dootuma tardé dinaa ko bàyyi. namoon naa leen trop maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñi ma fekk ci plateau bi. Mhm. ak ñi nekk di seetaana ah, d'ici et d'ailleurs partout dans le monde. di def un coucou à Sophie e Euh, et pour tous les prix comme Mambala la di nee na moom moo ëpp sax prix euh, ñu nekk équipe nationale. donc ñu ngi rafetlu bu baax euh, tout ce que tu fais pour le Sénégal tu défends bien les couleurs donc euh, go bon vent à toi. donc si on revient si thème bi on parle aujourd'hui de responsabilité n'est-ce pas de du mari et de la femme ci biir sëy dafa am lu ñu fi waxtaane woon la dernière fois muy lan ñun dañu dese xam lan mooy sëy ak lan mooy baasu sëy ak lan moo tax ñuy sëy souvent Euh, damay gis si jamonoy tey perdition bi fi ëpp ñàkk xam da ko waral ñii ñi ngi sëy par coutume ñii ñi ngi sëy par culture ñii ñi ngi sëy par mode. ñii par intérêt. ñii par waay par intérêt moom yàgg na fi yàgg na fi trop ba pare ñun ñëpp dañuy sëy par intérêt ah boo dee xool sëy jaamu yàlla la pour man en tant que musulman ni ma ko gisee sëy jaamu yàlla la mooy base bi c'est le ciment affectif ki nous relie ak suñu borom. Mm. booy jóg yow en tant que jullit nga nekk jigéen nga bëgg sëy da ngay jiital ni yow kat comme li ko Prospère waxee du caaxaan. Mhm. damay jaamu yàlla. Mhm. ku góor ki am engagement boobu ak moo digganteem ak suñu borom ni moom mhm. tamit dafay jaamu yàlla. sëy bi mën a dem. su boobaa intérêt su boobaa intérêt du femme de. intérêt bi xam nga lan la. ah yow yaa ko wax léegi. bi xam nga lan la. la par intérêt nga ne ñëpp intérêt. loolooy intérêt bi. lan mooy intérêt les intérêts diffèrent. di nga sëy pour xaalis kii dina sëy pour taar. kii dina sëy pour tur kii dina dina sëy pour famille juddu gu rafet. yow nga sëy te yàlla rek tax. Eh, waaw looloo intérêt fa yow sa intérêt loolu la ci loolu la jublu. foofu laay waxee les intérêts diffèrent selon euh, ku si nekk ak li li lay mbébét daal li tax yow ngay dugg ci sëy. d'accord alors ce que je voulais dire nous on a oublié d'éduquer nos garçons malheureusement boo dee xool responsabilité buñ koy wax ci biir euh, néegu sëy góor ñu bare dañu ñeme ñoddi man maay kilifa. waaw man maay góor. man maay lii c'est non c'est pas à imposer. te dëgg c'est pas à imposer façon ah. jëfin bi ñu koy defee. du looy yooxu wala looy revendiquer wala looy xëccoo da nga koy jëfee. waaw da ngay bu ñu c'est pas pour rien ñu jël góor def ko mu nekk le chef de la famille. c'est pas pour rien doom yi war a juddu. Mhm. war a porter son nom. donc am na fu ko yàlla teg. ci biir sëy bi. moom mooy chef de la famille. mooy jiitu. njaboot gi topp ci ginnaaw su ma nee njaboot soxna ak doom yi ci la ñu bokk mais malheureusement kii jiite na fekk mu jóg noo ban waxuma la ku dëng non waxuma waxu ku dëng de on parle constat la ñuy def actuellement ci mode constat la ñu nekk on parle des du du constat du fait responsabilité mari ak responsabilité femme ñu bafoué ko ku si nekk xamul lan mooy responsabilité am ci biir sëy bi ci loolu lañ nekk di wax mhm. jigéen da ngay sa morom yi dañuy sëy nga ni yow tamit bëgg nga sëy à tout prix. Mhm. nit romb la nga xemmeem ko yow jigéen nga ni man dama ciy dugg. Safia mhm. marié na Maya marié na il faut que tu te daal di dugg yow boo peut-être demoo bëgg demoo bay bëgg. waaw c'est-à-dire que amoo benn plan de vie amoo benn objectif amoo benn vision. Mhm. na nga sëy parce que sa entourage gis nga leen ñi ngi sëy. bëgg nga woo photographe ñu ñëw ñu photo la ñu defal euh, euh, reménage nga def sa ay snap. nga partagé fii nga partagé dugal madame X ba muy moom bu ñu paree génn photo wu dugal c'est le paraître moo leen sonal paraître maanaam gis leen ma. Mhm. diw sëy na ma nit sëy naa. mais contenu bi liy waral essence su sëy bi ci boppam dañ ko dul xam te duñ leen ko yabe. Mhm. te loolu tamit day ñëwaat encore ci éducation de base. parce que yow booy yar sa njaboot nga yor jigéen comme nga yor góor war nga ko mën a préparer su nekkee adulte mu mën a faire face à toutes ses responsabilités dans le mariage. Mm. que mu nekk góor que mu nekk jigéen. Mm. man bi ma dégloo léegi vidéo bi tout à l'heure ce que j'ai compris c'est pas des caprices j'ai compris reewande comme li euh, Prospère wax. Mm. waxul waxu jantu de. Mm-hmm. moom foofu mu ngi fay wax waxu nattu. ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am mm-hmm. benn jigéen bu sonaloon borom këram. Mm-hmm. maanaam. du du du caprice. Mhm. mais teg nga teg ko fitna. Mhm. ba bu toogee fitam du daal. Mhm. bu demee bureau pour mu concentrer wu peut-être problème lay doon. parfois nga yor sa xaalis sax doo xam noo koy dépenser dangay ngay da ngay jaxasoo doo am benn stabilité ah. sa ce soit professionnel que ce soit personnel. dafa am jigéen xam te ni dañu la mën a déstabiliser jaxase la.